Mm-hmm. c'est fatigant c'est à la limite euh, un éternel recommencement boo xamante ne ne population yi mérité wuñ ko yi nga yi nga réew dafa am fu muy toll lenn rek moo war a ñor waa réew ma c'est des enjeux de développement mm-hmm. c'est nan la ñuy def comme problème bu ngoor bii ñu regle ko nan la ñuy def pour population yi nekk ci ay jafe-jafe ñu jëlee leen ci jafe-jafe yi mm-hmm. nan la ñuy def pour yenn réew yi nga xamante ne raw nañ ñu si lu bëri ñu fexe ba dab leen ba romb leen nan la ñuy def pour ñu gën a mën a gérer nos ressources et cetera et cetera loolu moo war a doon enjeu yi mais tey débat amatul si loolu sax parce que loolu nekkatul enjeu bi enjeu bi mooy loo xam ne jàppoon nañ ne pare nañ si tout page bi définitivement moom la ñuy ñëw tey pour fexe ba mbir moomu ñu bañ ko yëkkatiwaat mais loolu c'est honteux xam nga parfois dañ may naan président Macky Sall waxagul ba léegi ma leen wax na que soo jugee fii génn si terrain bi yor mer gàddu ne troisième mandat du si am ñu pareeti nga nekk président de la république. Mm. def une réforme de la constitution en 2016. Mm. ne ne no mandat bi nombre de mandat bi kenn mësu ko laal durée bi la ñu laal. mais nga ne pour sax nombre de mandat bii ma ma gën ko dëgëral damay dama si yokkaat leneen loo xamante day gën a tëj bunt bi ba nga xam ne kenn dootu ko mën a ibbeeti. maanaam nekkuñu si nombre bi de nombre bi c'est réglé depuis 2001 mais dafa ne léegi bunt bi mu ngi nii tëju dama ko bëgg a gën a tëjaat donc loolu noonu pare expliquer ne ñëpp dégg ko ne lii lu mu si jublu mooy su dee wóolu ngeen ma mille 2019 boobu mooy sama dee parrainage c'est ça c'est lui qui interprète c'est le pouvoir constituant dérivé moom moo am l'initiative de la loi parce que la constitution dafa ne l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et moom moo am initiative bi moom moo ko expliqué nul ne peut être plus royaliste que le roi moom moo xam la moo si jubloon moo ko expliqué donc wax jooju jeex na tey su ñëwee ne nii wii nii non ça ne dugal na éventualité y'a un oui kon kay wax na ça veut dire il nous remet mooy à la case de départ mm-hmm. loolu lu ñaaw la surtout ñu ngi wax léegi ay nit ñi gaañu ñàkk seen bakkan ne Mamadou jóg étudiant ndem si yàlla yàlla na ko yàlla xare ko àjjana yàlla yërëm ko mais dafa ñàkk bakkanam si mbirum troisième mandat mën na am xawma lu nekkoon si xolo mën na am discours bu président Macky def si pré si troisième mandat moo ko dugal si combat bi c'est mën na am ba mu ñàkk si bakkanam mais kooku dañ ko honoré au moins bañ a tudd lu jëm si loolu mu war a leer completement parce que tudd bi tey mooy firnde bi ko xoolee rek mooy tey képp ku taxawoon ne président Macky Sall walu def troisième mandat daf la dàq na la jógee fi prétexte mooy lan mooy noo ñun taluñu ko dañuy liggéey mm-hmm. waaw su dee taloo ko dangay liggéey kay képp ku si wax la war a doon ku wax wii ku wax noo yëpp la war a concerner waaye suñ demee tey ba moom si boppam mu toog ne sama parti mu ngi may investir un peu partout mais waxaguma ñoo xamante ne dañuy def suñu defee euh, tran kii bi euh, kii à nation trois avril bi passé ñu ne ñi ñëw télé yépp si moom lañu dem la veille ñoom le même jour le même jour balaa ñuy balaa ñuy ñëw voilà plateau yi fa si moom lañ dogoo ñoom ñëpp soo leen dégloo même élément de langage la ñu am mooy président mën na def troisième mandat léegi ñu ne ñuy non bàyyi leen ba mu wax ba pare déedéet wax na léegi nag ndax daf koy fësal ou pas ñun nag dañu bëgg am une démarche dissuasive pour wan ko ne ko population yi waxoon yu xeexoon troisième mandat démb dinañ ko gën a xeex tey te amoo si droit mhm.